siyaaratil faaraxu daarayni aw saara amdi wa sukri liman kulli bi saara law ridan doona suutin inda sarsaara law sanaa iwarit وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنصاره لله كل للدى أبار ما كرمات من أرتلنا وفيه أجام من سارا إن الذين إليه سرزار خير خسادوا سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سرزار خير خسادوا siyaaratin faaraxu daarayni aw saara naar yaa nga naan diita waay Kajoor a gën sunum réew Seex Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaara jëf mbokk yi kon noonu ngeen gis rek mbooloo mi di yéeg ci kaw bag bi ñu ngi fii nag ci Rosso senegal bag bi agsi nañu war a yéeg ci kaw fas yéene jéggi nag dem Rosso Mauritanie nii nag lañ ko daan ànd ak soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération lu Café ci teewaay bu rafet lool waaye wuute ju teew mooy soxna maam Issa te ji yàlla dogal na nekku fi waaye dafa mel ni mi ngi ci biir mbooloo mi ndax pas-pas ak Pastef bi mbooloo mi daan ànd ak soxna maam Issa Mbacke njiitul fédération Anlou Café dara wàññi ko ci boo demee ci wàllu journalisme mboolem site internet yi mboolem télévision yi daan ànd ak moom ñëw nañu ànd ak ñoom ci liggéey bi waaye mbooloo mi nga xam ne itam ñoo doon ànd ak moom ci njiitul soxna Ndey Mbàkke soxna Ndey Sey Mbàkke sëñ du Kara ak mboole mbokk yi ñu àndal ñoom ñëpp teew nañu ak soxna Maam Jaara Mbàkke gis nga noonu bokki taali bii di yéeg waaye ànd ko ak nag mbégte mu takkoo takku dégg nga ñu ngi yëkkati kalimatu laa ilaha illallah ngir di dugg ci kaw bag bi ngir fas yéene jéggi mbokk yi kon lii mooy étape bi nga xam ne ñu ngi toll ci eh, Rosso Sénégal fas yéene dëgmal nag jéggi dem Rosso Mauritanie foofe nag bu ñu fa àggee fa la ñu nekk defee ñu noppee nag daal di mën a wéy siyaaratil faaraxu aw saara bu ñam rek alaaji ayeblo mu ñu bëggoon a xam rek bi nga yéegee ci ko bag bi ngir fas yéene dëgmal dem Sarsara ban yëg-yëg nga waaw xanaa santaat yàlla julli si yeneen bi waaye sant Serigne Touba xam ne tey neex na waaye dimbu metti woon na jamono yu Serigne bi jaar fii di dem foofa di fa def lam fay def wute ah, wuute na ak tey ji nga xam ne ay oto la ñuy dugg biis climatisé yoon wi neex lool ak toona buñ ci mën a jànkonteet ñu xalaat suñu waajoo ji rek xam ne buñ toppee ay tànkam a ah, duñ ca gis lu lu lu lu loo xam ne daf nuy rusloo waaye duñ ca gisit loo xam ne day yàq sunu pas-pas waaye lañ cay gis lépp mooy loo xam ne daf nuy jëmalewaat kanam te bala ngaa xam sëriñ bi dëgg nga génn ba topp mbooram fu mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk mhm. da nga fa gis loo xamante ne nii mhm. yow mi nga xamante da ngaa toog Sénégal ba tey dese ngaa xam sëriñ bi waaye ku ñëw sar a ak gis lam fa def mhm. dem Gabon dem Mayomba dem Limberweri dem Libreville jaar fi mu jaar fépp da nga xam ne suñu waaja rek mooy waaja kon yàlla na ko yàlla fayal sëriñ bi Mbàkke gannaaw bu ñu la nuyoo siyaar la dañ lay bàyyi nga nuyoo bokki taalibe a xëy na tey soxna maam Issa Mbacke mel na ne ku wóote jotaay bi waaye mel na ne ku teew ban yëg-yëg nga am par rapport ak bu ñu daan ànd ak moom waaw sant yàlla bu baax rek xam ne murid yi moom dëggal nañ ci liñ ne Serigne Touba rek leen ñor soxna si Serigne leen noonu woo bi mu ko wute tey ji ah, mel na ne mi ngi fi ndax mboolem lu ñu daan def ci yoon wi ak lu ñu teraanga yu fi daan am rek gis nañ ko fi taxawaay bi ñu daan taxawit bi soxna si nekk daa mel ni tey mi ngi fi ndax ma ngi fi ma ngi fi kon jógu fi ndax lii ñuy wax lépp ñu ngi koy dégg te ndax euh, liggéey bu nangu mooy tàmbali dara ba yàlla natt la benn at nga wuute ko loolu yàlla dogal muy continuer mu mel ne yaa nga fa kon dañuy sant yàlla di ko ñaanal li mu nekk yàlla génn ko ci bañ àndaat ko ci bis àndaat ko ci euh, ñu àndaat ko ci bismillahi ñu am na ñu bokk ak moom ndax lii bu ñu fi wala ñu mën faa dem rek jëmmam la boo ñu moo ñu fa woo moo ñu fa ndi moo ñu fa ba ñemee faa demal suñu bopp kon yàlla ñu ko yàlla fayal am ñu yaakaaroon ne bu wuutee jafe-jafe mën naa am ci yoon ndax biñu jógee mekku ngeen ay jafe-jafe yu leen jaaxal wala déet déedéet baax na wuuteem gi sax dafa mel ni dafa jàjj nit ñi ndax nit ku nekk da ngaa jóge jul jom ak fulla ak fayda ba mel ni mi ngi ci jataay bi dañu foog jëmmam teg ko ci jataay bi ba dara manqué wut wuute wut ni mi ngi ci biir jataay bi nit ñi moom macha allah sant leen gërëm ñu ngi seen seen taxawaay yàlla leen yàlla fay law sana iwarit waanil bila siqaatin مسقاد لي من بني ديمان أنساره لله كل للدى أبر ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إليه سردار خير قساد سيارة الفارخ دائرين أو شارا إن الذين إلى سردار خير قساد سيارة الفارخ دارين أو شارا naar yaa nga naan di tawaay topp ci seen ziar Sarsara édition 2023 mbokk yi am na nañu mbégte ànd ak yéen ci trajet bi nga xam ne nii depuis Dakar Touba waaye escale fi nga xam ne moom mooy Louga mbokk yi nag ñu ngi fii ci Rosso Mauritanie délégation yi jóge Touba ak Dakar yëpp jéggi nañ frontière bi jéggi nañ jël nañ bac ba jéggi ñëw fi nga xam ne moom mooy Rosso Mauritanie war a àggale nag seen i formalité dem jàll Nouakchott ci convoi yi nag ñu ngi fi ak sunu ci jëwriñ soxna maam Famaloo jiite convoi bi jógee dakaar ñoom nag ñu départ fi depuis démb ci takkusaan fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi dajeek ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge Touba muy ONG ak fédération Ahlou Café ci njiital soxna maam Issa Mbacké mbokk yi xam ngeen ne trajet bi dana métti du métti loolu yëpp nag waaye Pastef bi ci taalibe yi wane seen ak yàkkamtee àgg ci bërëb bu sell boobu noonu gis ngeen ne donc bus yi nga xam ne ñoom ñoo war a jéeg yëpp jéeg nañ sama gannaaw noonu gis nga bac bi di àggale li nga xam ne moom moo fi jot ñoom ñoo jotoon yéeg ci bac bi pour mën a wàcc. maa ngi nag taxaw ak ki ma invité mu ñëw rek soxna maam Famaloo daal di ñëw nag ñu waxtaan ñu nett li ñu tuuti ci li nga xam ne moom mooy seen trajet depuis Dakar démb ci ngoon daanaka ci waxtu wi ngeen fa jógee. soxna si ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi fay bu baax euh, di sant yàlla ba mu ñu béyee ñu taxawaat fii tey ci Rosso Sénégal Rosso Mauritanie waaw euh, Sarsara at mu jot ñu ngi koy ànd ak soxna sa Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ndax lépp moom la moo nu yóbbu Sarsara moo nu xamal Sarsara. ba mënatuñoo toog bu waxtu yu jotee mënatuñoo toog te ànduñoo ak moom woo mbokku taalibe yi ñu ànd ak sonomaay sama ak ñu dem Sarsara démb lañu ñu jóge Dakar tubarkàlla def nañ une forte mobilisation woon nañu waa axlu ko ñu ñëw toog ànd ak ñoom ñun ñu woo waa waa kurélu kuréelu Jeysun bi Jeysun bu Masalikul Jinaan les am nañ ci douze yoo xam ni ñëw nañu ànd ak ñun war a yor njàngum alxuraan mi njàngum xasida yi ñu départ dakaar bi ni ñëwee wàcc nañu Louga kër Alaaji Papa Kodolo bi nga xam ne moo fa nekkal sëriñ bi fa la ñu fanaan bi nu xëyee ñëw nañ ci croisement bi dajeek waa Touba ñëw ñu ànd ak ñoom jéggi ñu ngi fii tey ci Rosso Mauritanie. alors euh, soxna si euh, nekk fii ren waaye ci message yu ñu joto yónnee. nee na ren jii moo ko dàqal sax édition yi nga xam ne euh, moom la daan ñëw di ci ànd ak yéen loolu ban yëg-yëg nga ci am yow. yëg-yëg bi ma ci njëkk am mooy kaar bi ngeen gis Dalinkoor bi may luyee ji kaar bi 1 million 600 la waaye kama dem di ko luyee ji nekk taalibe Serigne Saliou la yokkoon na ko waaye bi ma nekk dañuy liggéeyal Serigne Touba dafa aalu ni ma man li ma am Serigne Saliou ma ko kon fay leen la ngeen fayoon daaw. ndax essance dafa yokk waaye tegg naa lépp ma duggee bureau fekk naa fa photo Serigne Saliou ak photo Serigne Fallou ma ne kon ren affaire bi dina neex bi ñu duggee ci oto bay ñëw mbégte bi ñu àndal xamuñu ndax si dafa ma woo ni ma ren lay daax ndax moom lu mu wax sëñ Tuubaa fekku ci ndax maam sa sëñ bi da ko liggéeyloo dafa am ngërëmul sëriñ Tuubaa moo tax lu mu dogu ni lii nangam dafay am tawarkàlla Mbàkke mun ma ren lay dax kaar bi ambiance la ba ñu yëg si ñii woy sëñ Fallu ñii di fecc ñii di kii lu nekk nit na ci ba ñu yëg si fii tey te xam naa bu ñu yeggee fee day gën a neex waaw day gën a neex ndax nit ñi boo xoolee nit ñi sax nga xam ni ñëpp dañoo bég ñëpp dañoo kontaan ànd ak cawarte maam Issa ngi ci biir de maam Issa ngi ànd ak ñun ci biir moom moom xëy na jëm ji la ñu gisul waaye mi ngi ànd ak ñun ci esprit mi nga ànd ak ñun ci lépp kon donc turam bi la reine du désert moom toujours de rester éternel. ça reste éternel parce que moo njëkk teg tànkam euh, dans le désert de de de Sarsara c'est la première a teg dans le désert de Sarsara kooku kenn mënu ko weccee kenn kooku kenn parrainé wu ko kenn marrainé wu ko mais c'est la reine du désert waaw moo initié lépp. alors euh, yaa ngi génne léegi bureau formalité yi foofu euh, naka la demee yomboon yombal nañ leen ko ren. waaw commission bi ñëw na tabarkàlla gisee nañoo gaa yi ba nga xam ni fay bi xaw na woyof tuuti xaw na woyof euh, Moulay Aydara mi ngi mi ngi daw rek bureau bu ne mu ngi fay dugg mi ngi woo commandant yi mi ngi woo yëpp ñoom xam nañu ren bi ñu ñëwee formalité dafa gaaw ndax li ñu daan laaj carte d'identité yi di xool nit ñi di yi mais yooyu defuñu ko dañu leen jox liste ñu dool ci cachet ni leen dem la ñi waa Sar Sara la ñu jéggi fay nañu ba pare léegi dañuy xewlu bu ñu xewlu rek ba pare ila noosu incha allah dem dallu ji dem dallu ji ba suba ñu nekkaat ci yeneen liggéey <laughs> jërëjëf mbokk yi soxna maam Fama Lo jiite convoi bi nga xam ne donc moom mooy jógee fële ca Dakar maa ngi seen nag Abdoulaye Dieye waaye nag bëggoon naa gis ci waa Dieye sun euh, ñoom nag kenn ci ñoom euh, bu ko defee tamit ñu wax ñu seen présence exactement ci euh, kuréel gi ci ren ji nga xam ne donc moom noonu nga ko annoncé ñu fas yéene ànd ak yéen fukk nit ak ñaar ci ñoom ñëw gunge leen ci yoon bi dafa mel ne tamit ñoom am na liggéey bu ñu doon liggéey euh, ci laata euh, bés bi di ñëw tamit. waaw xam nga dafa am euh, sëñ yi ñëwoon na dakaar woote fa benn assemblée général am na kuréelu jëysun bi mu ne woon bu sañoon tey jëysun bi day wàcc day wàcc Sarsara te muy lu mën a nekk sax parce que jëysun sëñ Tuubaa ko am keneen amul jëysun jëy bi dem na boo leen fekkee massage ko ñoom dinañ dem ba doon 1000 dem ba doon 2000 bërëb sëriñ Touba événement boo xam ne sëriñ bee ko moom jëy suñ dafa war a wàcc donc moo tax ñoom ñu jël une moitié ni foog ñu teew tey daaw sax ñëwoon nañu daaw ñëwoon nañu mais ren dañoo xaw a dañoo yokkaat nombre bi. jërëjëf waaw jërëjëf soxna maam Famalo kon nag moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite convoi bu Dakar euh, comme nag ni ko waxee ni ñu ko annoncé woon sànq. maa ngi eh, tak eh, ànd ak eh, ba koy ma koy invité ci fi nga xam ne moom la ñu nekk gannaaw bi ñu defee formalité yi Abdoulaye Dieye jiite nag convoi bi nga xam ne moom moo jóge Touba waaye di coordonné maanaam ñaari convoi yëpp ci Dakar ak ci Touba ñoom ñëpp waaye tamit dafa am sax leneen lu ci yokk moom mooy yeneen convoi yi nga xam ne du ñu ñëw tase fi ñoom ñëpp dafa mel ne benn say la ñu def ren ngir mën a defandoo seeni i formalité génn génn ànd def benn convoi jubali Nouakchott loolu dafa mel ne yem na Cheikh Abdoulaye waaw di maa ngi lay ziar baax di nuyu bokki taalibee ñu àndal yëpp di nuyu itam mboolem daayira yi nga xam ne ñoom lañ fi dajee muy day daayira Radatou Anil Mawla euh, ñoom itam ñuy ñu am pësteef wax dëgg yàlla euh, dégg naa léegi itam soxna Ayda dem ñëw na comme ni nga ko waxee rek noonu la demee dafa mel ni tey convoi yi fi daje yëpp wax dëgg yàlla euh, dañoo àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay xam ne ñoo bokk lu ñu yëkkati muy sàkku ngërëmal sëñ Touba bi ñu ñëwee itam wax dëgg yàlla daje fi ak suñu bokk yu jóge Nouakchott muy Abdou Assis Diop ak euh, sëriñ moodu Diop ak sëñ mulaay ñoom itam wax dëgg yàlla ñu def ay effort euh, am na sax euh, yu ñu daan fay yoo xamante ni bii tey fayuñu ko loolu di yokkute bu baax a baax a baax beneen bi ci dolleeku tam mooy àndandoo bi nekk benn ndax lu yàlla moo ñu ko digal wa tasimu bi ablillahi jameen wala tafarqu na ngeen jàpp ci bu mu yàlla gi te bu leen teqali ko waxtam ne julli ñi ay mbokk lañ dañoo wara a mbokk gi loolu nag def nañ ko. ba tax na ñun li ñu waroon a fay eh, ci bac ak li ñu waroon a fay ci assurance ak li ñu waroon a fay ci yeneen yu sesaan yëpp fay nañ ko léegi dara desul lu may eh, commissaire bi caché dossier yi ñu dem loolu kese moo des eh, nee na tam su fekkee lépp yemb na rek incha allah mu caché dossier yi ñu dem kon yaakaar naa ne ay minutes yu néew danañ war man a génn ànd ak commission bi incha allah wuti waa son jëm som na yàlla suñu borom même bon di sortie bi nga xam ne moom mooy yoon bi gaaw kon incha allah rabbi ñu fas loolu loolu nag lañ yaakaar loolu nag lañ yaakaar ndaxte mel na itam bi ñu fii laata ñëw euh, fekk nañ autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tam joxe nañ digal ndax Sarsara léegi nekkatul lu ump kenn saa woo ñëwee fii ba dugg ci cour bi rek Eh, da ngay gis naar yi sax ñoom ci seen bopp dañuy daw di sonn di li lijjanti yenn yi nga xamante ne bi mën nañ ko wax dëgg yàlla kilifa goo xam ne tam eh, am na lu tàkk bañ woo ko tam suñ ko wooyee rek eh, wax dëgg yàlla ak jàpp jàppandi la ciy def léegi nii rek bi ñu jokkoo ak nekk ci bag bi ndax bu 6 heures dañuy yokk ci bag bi Euh, lu tolloo 4000 ouguiya waaye léegi biñ ko wooyee nee na 4000 ouguiya nañ ko bàyyi nañ fay rek li ñu daan fay kon nag ñi kilifa yëpp jàpp nañ ci daal ñu ngi sant état wu Mauritanie di sant état wu Sénégal di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala li ñu ci amee ñu mën koo bokk ñun ñëpp ci barke Sëriñ Tuuba xasadu siyaaratil faaraxu daarayni aw saara mbokk xam ngeen ne màggal Sarsara dafay gën di yaatu ci Sénégal gépp du du délégation yu jóge Touba wala Dakar rek mais ba Casamance am na ci ay taalibe yoo xam ne dañu dégg appel bi rek comme ni ñu ko defee woon lancé woon pour woo ñëpp ñu ñëw barkeelu ci ba tax na sunu mbokk mi jóge ba Casamance moom tamit ci ñëw fas yéene ànd ak ñun ren ci màggalug Sarsara sëñ bi euh, bismillah tur bi naka la. sama tur mooy Aliou Aliou Djiba. Aliou Djiba bi mooy sa première euh, màggal Sarsara. oui sa tànk bi mooy c'est première pois ma dem ziare Sarsara. waaye sabab yëpp soxna Fama Lo dama xamante ak moom dakaar mu ne ma moom dafa bokk ay dajale kuréel yoo xam ne day dem si magal euh, ziar Sarsara ma ne ko bu soobee yàlla bu soobee yàlla ak yéen Serigne ren dama am yéene ma dem tami ma xam fan mooy euh, Sarsara mm. ma gis foofu kéemaan Serigne Touba loolu loolu war sama tànk mm-hmm. waaw ah, ko sa war nga yàkkamti woon nga dajeeg mbooloo mi nii ambiance bi. bégg na kontaan na sawar na lool parce que musuma dem Sarsara loolu donc lu ma gis mbooloo yi rek sant na yàlla sant na serin Touba waaw. alors déwén nooy woowee sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Casamance tamit. bu soobee yàlla maa ngi def ñoomu ñëpp ay message bu soobee yàlla. déwén du nekk man kese la incha allah suñu daayira bi dina am de délégation yoo xam ne dañu bokk si soxna Fama Lo ngi dem ziyaare Sarsara. est-ce que doo leen ko lakk ñu dégg ko. Ah, di télévision yanga raña wuli koke manu tiplo fala fati Mauritanie wuli kok tate manu jogenore pour be jay be ziyaare ti Sarsara mo kane ñom de saf di daayira yolela burum anu sana je be jamu ñom de saf kati Casamance burum jomde e safkati région era ziguinchor département ti biñona ɓuurom an ah, sérin touba eno ña ome nan pori lon tate ni leya pane yeme si bisa sosman si gare si wote sosman si gare e jomde saf télévision o wiye assalamu aleykum wa rahmatullah taala wabarakatuhu ma ngi nuyu wa télévision bi ak liggéey bi barki sérin touba alhamdulillah mbokk yi euh, ma fas yéene ànd ak rek waa kuréel Jeysun euh, ak sëñ Makhtar Dieng moo leen jiite euh, donc nag ci xam naa rek ci tënk rek sëñ Makhtar yaag sa mbokk taalibe yooyu bismillah euh, bu ko defee nag euh, yéen tamit seen teewaay lu am solo la ci bés bi ñuy àndandoo rek teewlu leen ci li nga xam ne ñoom la ñuy euh, dégloo ak ni la leen dalale kon ñu ànd ak ñoom ñoom ñu waa kuréel suñ kon seen teewaay ànd ak soxna maam Fatou Abalo jugee ba Dakaru ñu bàyyi leen rek ñu yëkkati tuuti rek ci béyit boobu noonu nga xam ne moom mooy hamdi wa shukri

الذين إلى زرزار قد قد mbokk yi ñu ànd ak rek xam naa ne sëriñ Mokhtar Dieng euh, liggéey bi euh, door ngeen ko laata ngeen di départ Dakar démb ci waajtaay ku màggal ak Sarsara gi nga xam ne moom la ñuy nekk fii ci Rosso fas yéene jëm jubali Nouakchott alxamis ñu fanaani fa ca bërëb bu sell boobu. bisimilah barke bam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi ziare sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général murid nga xam ne liggéey bi ci ndigalam lañ ko teg di ziare sëriñ Bassirou moom. loo mi nga xam ne mooy jëriñu Masalik nga xam ne mooy imam bi ak sëñ Xaadim Lo ak sëñ Bakki Fay mi nga xam ne mooy jëriñu liggéey bi kon nii rek lañ ko nosee woon bi ñuy jógee Ndakaaru démb daanaka ci waxtu bi dañ jógee Ndakaaru sëñ Basiru Lo ak sëñ Xaadim ñaanal ñu ñu jóge fa ñu fa jógee nag benn étape rek lañ def mooy Louga lañ ñëw fa lañu fanaan kër sëñ euh, kii Lo fa lañu fanaan nga xam ne mooy représentant wu yoonu murit Ndakaaru Pape Kaddo Lo fa lañu fanaan démb bu defal ñu lu nekk ndax kuréel jéesuñ bi moom ku ne ko xamee mooy soxna Fama Lo mi nga xam ne moo fi nekkal soxna Maay si Ndakaaru moom soxnaam la kon fa la ñu fanaan bi ñu fa fanaan bi ñu xëyee nag la nekk Louga cortège bi ñu ànd ñëw fii xam ne daanaka ay 17 heures ay ay ay ay 15 fii ci bag bi léegi nag lañ jàll war dem nag Sarsara li ñuy sëñ Sidi nag sëñ Sidi mu sëñ Mutala moom la ñu moo ñu ci woo ndax ku xam ne ñetti at yëpp dañuy woo jëy seen bi pour ñu dem def ay prestation bu ñu demee nag suñu programme mooy dañuy dem Serigne Sidi waxtu bi bu ñu eggee euh, Nouakchott dañuy dem mu ñaanal ñu tàmbali liggéey bi am na étape ñuy def foofu nag daanaka le deux yaakaar naa am na ci étape bi ñu fay def le premier nag yaakaar naa mooy màggal sasar loolu nag ñun gudd àjjuma bi kuréel jëy suñu ngeen seen nii bu ñu demee foofu dañuy fanaane jàng ba peut être bi ñu xëyee gudd gudd àjjuma bi ñu def gudd àjjuma bi dem daal di dem Matamulana ndax sëriñ bi ren dafa bëgg kuréel jëy suñ bi dem Matamulana kon noonu mooy suñu programme incha allah samedi nag ñu dem ci salle de conférence daal di ñibbi si Ndakaaru programme bi daal noonu ko doxee ñu ngi saar bu baax di bu baax ci ci communication bi nga xam ne chaque année nii lañu koy doxee yéen ngeen ciy jàmbar lool nga xam ne daaw bu ma jógee fi dem Ndakaaru sëñ Bakio Faye ci boobu moo ma ne lépp mi ngi ko doon teewlu lépp direct ngeen ko defal kon dañ leen amal njukkal gu rëy waa presse bi di leen sant bu baax jërë ngeen jëf. mbokk yi kon xam ngeen rek euh, noonu la leen di toppalee Euh, li nga xam ne moom mooy euh, ziar bi waaye tamit ci formalité yi dégg ngeen soxna maam Famaloo Cheikh Abdoulaye Dieye li nga xam ne moom la ñu war a def yëpp ci bureau yi def nañ ko waaye fekk si nañ fi commission bi nga xam ne ñoom ñoo jógee Nouakchott gàttandu leen kon mbokk yi duñu def lenn nag lu dul ànd ak yéen ba biir Nouakchott ca kanamu Serigne Sidi Mbacke Mourtada mu dalal taalibe yi bu ko defee liggéey bi daal di wóyandi ci yeneen euh, jot anam ak yeneen jotaay jërë ngeen jëf. lawri dan doona suuxtin inda sarsara law sanaa'i waarid waanil bilaasi qaatin musqaada lii min banni daymaana ansaara lillaahi kulli ladaa أبار ما كرمات من أرتلنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرزر خير خسادوا سيارة الفا إن الذين إلى